abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV Euh, dal leen ak jàmm mbokki internet yi man nañ ne nag jamono yi ñu toll nii ma ngay tàng jër foofale ca diwaanu Ngor gannaaw nag jàppante yi nga xam ne rek mën nañ ne semaine yële ñu génn booba ba tey gisoon nañ ak dal xawoon naa am wante kat bile yoon ñu daal di gisaat nag renforcement bi nga xam ne rek ñii nga xam ne ñoom ñooy waa Ngor daal dinañ koy jotay defaat fas yéene taxaw nag jaamarloog ñi nga xam ne rek ñoom ñooy takk der yi jamono yi ñu toll nii sànnante xeer baa nga mel ne tulleek ma xamal leen ci jamono yi ñuy waxee ak yéen nii nag mën nañ ak dal amagu ci gannaaw nag bi ñu woote woon li nga xam ne rek moom mooy ab ko pour nag fa seene toog waxtaan ci seen diggante gannaaw nag problème yi nga xam ne rek posé woon na ci semaine bële passé nag mën nañ daal dinañu woon rek toog def li nga xam ne moom mooy waxtaan wante kat dara sotteegul boobu ba tey tax ñii di xale yi nag daal di miraat ba futtu fa seene jugaat nag jaamaarloo ak ñi nga xam ne rek ñoom ñooy takk der yi ñoom sànnante xeer yi nga xam ne rek mën nañ ñi ay gaañu gaañu yu bare bari jot na see am bile yoon nag mën nañ ñi ay jigéen ñu nga xam ne sax jot nañ leen a daal di eh, gaañ ba sax ñii di takk yi jël leen def leen li nga xam ne rek moom mooy ay mbir yu méttee méttee métti ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa Ngor daal di ñaawlu li ni mel nekkat li nga xam ne rek moom mooy mbir moomee mën nañ ñe yoonu jigéen ñi sax nekku sa woon wante kat bëgg leen naqaral tax rek ñu daal di jàpp ñenn ci ay jigéen ñu nga xam ne rek mën nañ ñe daal lañ leen wulli door dóor leen dóor yu méttee métti foofule ca oto police yi nga xam ne rekk jotoon nañoo teew ca bërëb bi ni mel pour naka fa seene daal di sàmm lépp lu nga xam ne rek kaaraange la wante waa ngorkat ne du ci dal il faut nag danañ fa seene jàkkaarloo ak ñoom defante ak ñoom mbir mi ni mel nag mën nañ moom moo gën a fees ci jamono yi ñu toll nii foofule ca diwaanu ngor mën nañ ma ngay tàng di leen di jaajëfal wax